asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel Mouride TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax ngeen gis ñu ñu ngi fii ci pencum Serigne Mahmoudan Mbacké di waajal li nga xam ne moo di màggal ak Touba Mbella màggal ak Touba Mbella nag ngeen gis ni ko taalibe yi nga xam ne moo Serigne Mahmoudan ni ñu koy waajalee ñu fas na indil rek li nga xam ne programme jëm ci karawaanu màggal ak Touba Mbella dinañ ko door àllarba juróomeelu fan ci weeru février bi ñu nekk nii incha ni ñu koy doore nag dinañu dem ci dëkk bi nga xamante ne nii moo di moo di Tiwaawoon wile dinañ foofu la ñu doy li nga xam ne moo di karawaan dañ ci ànd ak ki nga xam ne ki nga xam ne moo koy jiite muy Serigne Xaadi Mbacke moom Serigne Abdoul Ahad Mbacke moom Serigne Mahmadan Mbacke moom Serigne Massamba Mbacke dinañu tàmbali karawaan bi incha allah rabbi euh, juróomi waxtu su ngoon su jotee euh, dinañ ko tàmbali jugee fi nga xam ne moo di Touba la jëm fi nga xamante ne dëkk bii di Tiwaawoon wile suñu eggee nag dinañ fa amal ab jotaay def fa li nga xam ne moo di waxtaan ki nga xamante ne nii wi nag dinañ fa def tem thème bi mi ngi jëm ci royuwaay ki nga xam ne mooy def waxtaan bi nag di sëriñ Mouhamadou Lo moom sëriñ Moustapha Lo moom sëriñ Abdourahman Lo suñu fa jógee dinañ dellusiwaat ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba Mbella euh, daal di leen di defal li nga xam ne daal di leen tegal nga xamante ne ni moo di màggal ak 2019 bi nga xamante ne ni moo jàlloon da duñ ca nopp itam dinañ fa def li nga xam ne moo di ak jàngat ñaareelu fan ba dëppook alxamis di juróom benneelu fan ci weeru ci weeru février bi euh, suñu suñu xëyee suñu danañu déparaat fii nga xam ne moo di Touba Mbella utali fi nga xam ne moo di gaawaan suñu eggee gaawaan nag danañ fa amal itam li nga xam ne moo di aw waxtaan danañ fa amal li nga xam ne moo di aw waxtaan waxtaan wi nag mi ngi jëm ci Serigne Touba royuwaay bu kawee bi nga xam ne moom la doonoon ki nga xam ne itam mooy amal waxtaan bi di sëriñ di Serigne Mouhamadou Lo moom Serigne Moustapha Lo moom Serigne Abdourahmane Lo mooy ki nga xam ne mooy amalaat waxtaan woowu rek euh, suñu noppee foofu nag danañu dellusiwaat fi xam ne moo di Touba Mbella euh, suñu fi dellu see nag danañ leen tegal li nga xam ne moo di dundëkku Sëriñ Mahmadan Mbàkke euh, waaye nag dinañ fa amal li nga xam ne moo di taskatu xibaar euh, danañ ko def ci kàllaama Kocc Barma waaye dinañ ko def itam ci kàllaama ak nasaraan te ñetteelu fan ba nag tombeek aljuma doom ñaareelu fan ci bi dañ ubbi li nga xam ne moo di ab exposé dalal gan ñi suñu noppee ci loolu nag dinañu dem fi nga xam ne moo di Mbella Saloum dinañ fa def itam li nga xam ne moo di ab waxtaan thème bi nag ñàkk royuwaay waaye lan la mën a jural doomu a doomu aadama bi ci ay gàllankoor euh, ki nga xam ne mooy def waxtaan wa itam mooy sëriñ Mouhamed Lo moom sëriñ Moustapha Lo moom sëriñ Abdourahman Lo moom mooy ki nga xam ne mooy amal waxtaan wi ginnaaw bu loolu jàllee nag dinañu dellu siwaat fii nga xam ne moo di Touba Mbella ci kër xalifa bi nga xam ne moom mooy xalifa euh, sëriñ Mahmoudou Mbacke waaye mooy porte parole euh, xalifa sëriñ Massamba Mbacke di sëriñ Cheikh Mbacke buñ ñëwee rek nag dinañ toog ci kanamam ñaan ko mu ñaax taaliba waxtaan ak ñun waaye nag mu ñaanal ñu bu ko defee rek ñu daal tëj li nga xam ne moo di karawaan bi euh, di ñaan yàlla rek ñu fekkewaat ko euh, déwén incha allahu rabbi